soo demee tëj ngeen soo demee bi yàggu na rek ñu waa ne ñu am benn problème maa ngi ko gën a koo ñaan ñu ko ñaan bu baax la. ñoom way bari neen biir Latrikunda dama koy wax soo seetee diggante bi ba fi nga xam ne mooy ëllëg yëpp ay ñawkat ngeen seppi si nga xam ne mooy maam góor lan moo waral loolu. mango dafa baax amul xale amul mag ñëpp ko xam bii laata gunnaa maam góor daa mënuñ koo fay. fii bu mu ñëwee si koñ bi ñëpp la téye du gis kenn même la rombate nuyu waaw looloo looloo ñu doy si moom moo tax ñu ñëw ko suñu ko ba def ko lu nekk jamono bi tey eh, seen eh, bés bi eh, fees na dal ñëpp ji si neen gis nañ fi mag gis nañ fi xale yi gis nañ fi maire paa yi yëpp gis nañ leen fi mu nekk loo xam ne lu neex la noonu la gisee loolu. moo ko waral moo tax tey ñu jaay suñu lal yi kenn nelawaatul laati kundaa kenn nelawul ñëpp a jóg amul mère amul paa ñëpp a jóg ñoom uy subaa nguur. Ah, soo doon tàggatoo looy tàggatoo askan bi. xanaa di ñaanal maam nguur mu dem si kanam rek di ñaan suñu nguur bi tam mu dem si kanam ñu nekk benn. yàlla ñu yàlla dimbale daal. jërëjëf. jërëjëf.